waa di kontaan bu baax a baax rek xam nga fii miin nañ ko mi ngi ren mooy quatrième année ñu fiy ñëw chaque année di ci participer mais ren nag dafa mucc ayib vraiment ma ñëw ñu ak accueillir ma euh, soppe yi ñëw mbokk yi ñëw am di jàmm yi ñëw ma ciy kontaan bu baax a baax a baax. xam nga moom euh, ndeysaan amul si man sago tey dafa toog kër ga sànq ma ne ko nañ ànd foire ba euh, nga seetaan concert bi. parce que mon ci concert yi rek lay mën a ñëw xam nga te loolu dafay am solo trop trop ci man daf ma yokk courage daf may yokk doole ma ciy kontaan bu baax a baax. incha allah di wax soppe yi ak am di ak fans yi album bi dina génn le 6 janvier bu soobee yàlla bis bu génnee di ngeen ci jot di jox rendez-vous ñu déglu album bi le 6 janvier bu le 29 février ñu dans dem grand théâtre fi site bi nag. Vision. Ovision Vision, koy am en exclusivité le 29 février Tarba Mbaye au grand théâtre le 16 janvier sorti album Tarbambay, Maturité maturité la noix..!